ku gis li na nga sant yalla bu baakha bah. baakha baakha baax ndax te li ni ngeen gis sen écran turu yalla yi la yalla ay turum dafa bari te bu nek rek ak noko ci woyé kon yow mi nga li ni ya nga jakkar ak mom tek si sa beut ah sant yalla bu bah, baakha bah, a baax a baax ñun wax alhamdullilah rabbil alamin ndax am ñu dund ba dé te mosuñ ko gis mosuñ ko tek beut kon yow mi nga xamne mëno jang sax nga xol ko rek am na solo te nga boole ko yéene yaa xam li nga nekk di dund yow rek yaa ko xam moo xam xéwal nga bëgg moo xam wërsëg nga bëgg moo xam tukki nga bëgg moo xam sëy nga bëgg moo xam da ngaa nekk si sëy bëgg fa jàmm ak sa borom kër wala ak sa jabar moo xam taw feex nga bëgg njaboot gu barke yow daal yaa xam li nga bëgg ni ma koy tegee nii nii nii nii ngeen koy gis nii nii nii nii noonu laa bëgg itam nii nii may waxee yéen itam ngeen di si yéene waale seen soxla vidéo baa ngi dem de leen koy xool mais de leen si yéene waale li ngeen bëgg ndax xam naa li ma leen di wax bu baax a baax a baax a baax amul dara lu metti si lii yow mi nga xam ne yaa ngi ne jàkk lii da ko xool yaa xam lépp lu nekk sa xel ak sa xol si lu baax nag laa wax yéene ko si si turu yàlla yi mag yi yëpp ñu gis fi nga xam ne mi ngi commencé rahmaanu rahim ba malikul mulku si jalaal wa ikram fas si sa bépp yéene sa bépp soxla fas ko si te inshallah rabbi amal yakarne amal yaqin yalla dana faj aajo boobu si zaay rek ci baati inshallah ndax li epp na sax tej epp na tej diko diko diko diko leralal ko kana ko xamne borom xam-xam la wala ko xamne itam xamna asrar nga man ci waxtan ak mom waye dañuy manay a wax ji rek bu di len wax li nga xamne ne mën ngeen ko deg li nak ku nek mën nako te ñu ngi ñaan ci yalla itam Euh, képp koo xam ne yaa ngi koy xool boo ko xoolee ginnaaw ga ba pare boo xoolee li ba yéene sa yéene ba pare dama nga toog nga julli ñaari rakk bu julli ñaari rakk ba pare nga jël sa kurus nga julli si yonent bi nga def sallallahu ala muhammad cent onze fois wala cent fois wala nga def salatu ala nabi boo mën rek noo mën a jullee si bi nga julli ko si lim boo si mën tam nu mu gën a élevé baax na lim boo si mën a am waaye li si lim commencé lu gën a ndaw na nekk cent ba cent onze soo paree nga àddee ko yonent bi yow nga xool incha allah rab yàlla di def bu dee yàlla mën na itam ngay faral di wédda yaxayu yàqayum cent fois baax na lool kon nag mbir maa ngi noonu ñu ngi yem fi ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu